ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen di ànd ak sunu euh, site internet bi di timis actu point net waaye fego ak rakam doomu ndeyam timis tv nekk ci youtube bi di sunu seen youtube ñoom ñaar yëpp nag ki leen jaboote di groupe timis media moom euh, nekk éditeur ñaari euh, sport yooyu kon ñu fas yéene rek di and ak yeen jamono joon sa sunu su ngir rek di len euh, jox lepp lo xamni soxla ngeen ko ci euh, fu mu mën doon ci réew mi wala ci bitim réew ñu ci jëf suñu kemtu kemtulaayal katan xam nga ne rek jamono yi ñu tollu ñu ngi ci wajtaayu li nga xamne modi magal Touba 2020 ñu koy wax 18 safar euh, ñu ci fàttaliku nak tukkib cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul mu nga xam ni e, demoon na ànd ak tubaab yi ci e, yoon wi nga xam ne ñoom ñoo ko yóbbu woon ngir e, xañ na ay sabab yoo xam ni taxoon na ñu yóbbu ko ci fi nga xam ni moo di réewum Gabon ki nga xam ne fa la ëppoon lu mu def ca tukki boobee nga xam ni nekkoon na mille huit cent quatre ba mille neuf te mbir ya dooree ca fa nga xam ne moo di bureau ba ca Ndar ca euh, jataay boobee nga xam ni la waral tukki ba euh, mën nañ wax ne euh, lu ci bari walla boog am na ci loo xam ne foofee la xewee sëriñ bi kon bi nga xam ne dellu si na ginnaaw bi nga xam ne tubaab yi yóbbu nañ ko jaarale ko ci réew yu bari ba ca réewum Gabon ni ñu leen ko waxee foofu la defe woon la ëpp ca tukki boobee mu waxoon ne nag ci kàdduk kilifa yu bari yoo xam ni dégg nañu ñu nettali ne sëriñ bi nee na saa su bis bi dellu siwaatee nañu ko ci santal yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala ci xéewal yi nga xam ne defal na ko ko waaye may yi nga xam ne may na ko ko moom Serigne Touba Xaadim Rasuul kon loolu moo waral ñuy amal li nga xam ne moo di màggal Touba mu waxoon ne nag ci eh, kàddu kilifa yu bari yoo xam ne nii bokk ci lenn ci ay xalifaam wala boog bokk na ci sax ay xalifaam ñu wax ne eh, li ko dalee ci ginaar ba ci gëléem Euh, lépp lu dagan a euh, jëfandikoo ci ab julli rek bu bis ba jotee nañ ko euh, jëfandikoo kuko am te man ko nang ko jëfandikoo boole nak ak alquran al karim bi nga xamni mo doon tagute fi fa khadim ci si ahmad bamba waye xasaayiti serigne tuba ay salatu ala nabi ak ay istighfar bépp jamu jaamu yalla rek ñu boole ko ci ak bernde ñu pale ko ko yalla suñu borom subhanahu wa taala lolu kon moy li nga xamni moy magalu touba tuba ñu ko doon amal nak serigne Modou mustapha mbake mi nga xamni mo moo njëkk khalifa nekk rasul wutu ko ci 1927 deux mille neuf cent euh, quarante cinq moom tamit doon ko wéyal naka noonu Cheikh Mouhamad Fadel Mbacke jël xilaafa gi ginnaaw bi nga xam ne Cheikh Modou Moustapha Mbacke làqu na ci 1945 mu jël ko ba 1948 moom tamit euh, mu wéyal li nga xam ne moo di bis bi te wote bi daje bi sax ci dëkk bu sell bi di Touba ci ni ko kilifa yi xamle Serigne Fallou moom moo ko njëkk ci bi mu ay sababa ko waral te it lépp rek ay njariñ la waaye lu tege it fa mu war a tege la euh, ba tax na kon loolu doon ci euh, bi fi ci 1948 Cheikh euh, Abdoulaye Mbacke wéyal liggéey bi moom it di doxal di ko doxalee ni nga xam ne noonu la ko euh, mag ñi daan doxale rek ba euh, saa su sax muy gën sax di yokku ndax àdduna noonu la lu gën a dox rek mbir yi gën di yokku noonu la ko xalifa yi fi jaar sëriñ Abdou Xaadir sëriñ sëriñ euh, Cheikh Mahamad Lamine Baara Cheikh ma euh, Sidi Muxtaar ñoom ñëpp noonu lañ ko doon wéyale ba ci sëriñ Muntaxa Mbàkke mi nga xam ne moo fi nekk toog toogaayu Xaadimu Rasuul ñu koy ñaanal mu yàgg fi te wér moom tamit euh, at yi nga xam ne toog na ko toogaayu Xaadimu Rasuul noonu la ko wéyale woon def ci ay jëf yu am solo yoo xam ne ni saa su rek dañuy gis ne tubaarkalla macha allah. yëf yi mu ngi gën a dund mu ngi gën a jëm kanam kon noonu la li nga xam ne moo di màggal Tuuba di wéyee ren na xam ngeen ne dafa daje ak li nga xam ne moo di jàngoro ji nga xam ne moom la ñu tuddee li nga xam ne moo di euh, coronavirus. coronavirus boobu nag waral ay bés yu bari yoo xam ne ay màggal la woon ci dëkk bu sell bi wala sax ci yoonu murit wala ay xew sax ci euh, réew daal di koy euh, takkal wala sax bu dee ne sax ñoo ngi koy amalit euh, ko doxale yeneen doxalin te bokk na ci màggal yi kenn ku ne di ko amale fa nga nekk nga koy fay amale dajaloo bi bañ am loolu nag kon moo fi jaar ci màggalu sëriñ Fallou màggalu Daaru Musti ak màggalu sëriñ Abdoulaat màggal yi fi jaar si màggalu sëriñ Masamba màggal Daaru Salaam màggal yi bari na yëpp noonu la fi demee ba ci màggal sëriñ Abdou Khadir gi nga xam ni war naa am rek ci fan yi di ñëw incha allahu tabaraka wa semaine bi di ñëw incha allah moom tamit loolu lañ ci joxe comme digal màggal Daaru Xudus bi nga xam ni moom tamit mu ngi ñëw te du sorante sax ak màggal Tuuba gu mag gi kon moom tamit ndigal loolu la jot ay xabaar ci ne noonu lañ ko fas yéene doxale kon màggal tubaa tamit nekk loo xam ne nii eh, ab diira ngi ne ci ginnaaw li ñuy moom la waxtaane jamono ju ne saa su ne foo dem ci biir oto yi saret yi ba ci grand place yi marché yi eh, eh, foo xam ne rek askan wi ña nga fay daje Eh, lu ci gën a bari ci màggal Tuuba la ñuy waxtaanee ndax dañ koy def nañ ko daan defee ndax nu ñu do wala soppite yi nga xam ne dafa laaloon màggal yi nga xam ne mooy màggal yi eh, ko jiitu woon muy màggalu sëñ Fallou comme ñu jël ci misaal ndax eh, noonu lañ koy doxale ku ne defale ko defee ko nang ko fa nga nekk lii loo xam ne nag ku ci nekk yaa ngi ci andi sa xalaat di ci wax it sa bëgg-bëgg waaye nag mu nekk loo xam ne nii ba léegi rek xañ na eh, ki nga xam ne moom moo ci war a àddu bu ci eh, xañ na bu jotee dina ko def ca euh, na mu ko daan defee nii loo xam ne nii nag ñu ngi ci waajtaay wi màggal googu di 18 euh, safar ginnaaw bi nga xam ni amal nañu ay réunion bu njëkk euh, bu jëm ci waajtaay bi te amale ko ci kër Serigne tubaa fi ñuy wax résidence Xaadimu Rasuul bi jàkkaarloog jumaa yi Touba ci njiitu Serigne Bassirou moom Serigne Abdoul Khadr feggoo ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal comité d'organisation bi yépp ñaa nga fa woon ca jataay ba waaye tey ci samedi bii. di euh, fukki fan ak juróom ci weeru août ñu amal li nga xam ne moo di CDD bi nga xam ne euh, CDD bi nga xam ne préfet département moo koy jiite bu Mbàkke ak chef de service yi nga xam ne ñu ngi ci euh, diwaan bi ci teewaayu Serigne Bassirou Abdou Khader feggoo ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci comité d'organisation bu màggalu Tuuba kon loolu war nañ ko amal tey incha allah. ci fi nga xam ne moo di euh, moo di euh, mairie bu Touba ndax nag ci kàddu Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacké wax na ne ci suba si lañ ko waroon a def waaye tukki na ko boo xam ne ki nga xam ne mooy ministre bi yor wàllu environnement defoon na ko ci dëkk bu sell bi tey ci samedi ji moo waraloon ñu euh, aj ko war koo def ci ngoon si kon ñu dàq ko ci suba si yóbbu ko ci ngoon si kon loolu mooy kàddu yoo xam ne nii noonu lañ ko jotee Euh, réunion boobu nag ñu nemmeeku ci ay coppite ci euh, defin wi defin wi ndax euh, ku ne xam na ne CDD bu mosaan am ba ci CRD dañ ko daan yaatal chef de service yëpp ñëw waaye tamit presse bi muy taskatu xabaar yeeg ñeneen sax ay taalibe di ko faral di fekkee bi yoon nag coppite yi ci am bokk na ci dañ ko def li ñuy wax viclo tëju lañu def waxtaan Euh, amal li nga xam ne moo di euh, euh, réunion boobu te jot nañu sax nag ci ay xibaar mais réunion boobu service yi nga xam ne yenn yi dañ doon yebal ñaari nit wala ñetti nit loolu du am ci réunion bi ci xibaar yi ñu jot kenn ku ne service bu ne benn nit rek lañ la may nga yebal ko ndax coronavirus moo ko waral wala ndax lu mu mën a doon waaye daal xibaar yi ñu jot loolu la ñu wax waaye liy wértu wóor mooy mu leer ñu mooy wàllu tas xabaar yi moo taskatu xabaar yi moom dañu leen tëjal bunt yi ne daal waruñu fekke loolu ndax euh, viclo lay doon bi yoon loolu mu nag muy coppite boo xam ne mosee su ko gis wala mosuñu ko fekke ci waajtaayu màggalu Tuuba kon loolu am na tey ci euh, mairie bu Touba ndax nag taskatu xabaar yoo xam ne jotoon nañu sax nekk ca saal ba ba ñu nemmi ko kene taskatu xabaar ña nga fa dañu xam ne rek nañu yaatale nañu jóge foofu ci bërëb ba génn ndaxte euh, waxtaan wi waxtaanu euh, biir nekk lay doon viclo kon loolu tax na ba ñoom dañoo génn ñun tamit bi ñu accès waroon dugg euh, loolu la ñu xamal gardien bi nga xam ne moo nekk ci bunt bi daf ñu xamal ne taskatu xabaar yi euh, duñu duñu du ñu dugg loolu nag muy ay coppite yoo xam ne nii jur na ay xalaat yu bëree bëri jóge ci ay mbokku taalibe ci ne soppite yooyu nga xam ne coppite yooyu nga xam ne am na ci waajtaay yi ndax mënula dem ba euh, laal li nga xam ne moo di bés bi ndax nag lu daawul am la kon su amee su waajtaay bi amee coppite ndax coppite googu mën naa dem ba àgg ca bés ba ñu koy defay weneen defin wuute ak bi nga xam ne moom lañ miinoon eh, di ko eh, gis ci eh, màggalu Tuubaa waaye nag loolu ay xalaat la rek yoo xam ni ay nit ñoom ñoo ko am di ko xalaat waaye la nga xam ne nag mooy am dëgg-dëgg ci jëmmi màggal gi loolu moom Euh, ci benn kàddu ci genn kàddu lay jóge muy xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké te àddoogu euh, ci xañ na bu wax ko jotee dina ko wax mbaa wax lu ko loolu kon daal mooy li nga xam ni rek nemmeeku nañ ko muy coppite yoo xam ne am na ci waajtaay wi coppite yooyu nag euh, xalaat lenn ci xalaati askan wi nga xam ni wax nañu ne loolu kat Euh, kon euh, dafay junj rek ne euh, kon màggal gi mën na am ay coppite comme waajtaay yi am na coppite màggal gi mën na am ay coppite muy kàddu yoo xam ne nag xañ na ñi ko doon wax bëgguñu sax nag ñu enregistré leen wala feeñ ci wax ji waaye daal li wér mooy seeni xalaat la seeni gis-gis la yoo xam ne ni ñoom ñoo ko am ci mbir mi waaye ni ñu leen ko waxee nag li nga xam ne mooy dogal bi. ginnaaw yàlla ci xalif général de Mouride rek lay jóge muy kàddu goo xam ne nii moo naan nañ ko defee nii moo xam euh, nañ ko daan defee ñu defee ko ni wala ñu andi ci ay soppike soppite comme ni ñu ko andee ci yeneen màggal yi weesu woon ngir tolluwaayu jamono ci jàngoro ji lu mu ci mën a doon loolu ñun xamuñu ci dara waxuñu ne it nii lay demee waaye daal li nga xam ne moom la ñu gis te mu ñu moo di coppite yi am ci CRD bi loolu daal mooy li nga xam ne moo ñu wër mooy li nga xam ne moo ñu wóor waaye jëmmi bisu màggal gi nag ñun xamuñu ndax nii la ñuy defee wala neneen la ñuy defee loolu ñun waxuñu loolu waxuñu ne màggal gi day am soppite waxuñu loolu waajtaay yu daal am na coppite ndax coppite googu nag euh, du dem ba laal li nga xam ne mooy bisu màggal gi kooku it xalaatu yeneeni askan la lenn ci askan wi la xalaatu lenn ci taalibe yi la euh, yoo xam ne ñoom ñoo ko xalaat wax ko mu dugg ci suñu awu nopp kon loolu daal mooy li nga xam ne jàpp woon nañu ko ci waajtaayu màggal Tuubaa gi ñuy ñaan yàlla suñu borom mu may ñu jàmm may ñu fekke ko te tal ko ba euh, li nga xam ne rek moom euh, lañ ci euh, namu ak nu mën a demee rek ñu mën ko defee li nga xam ne moom la ko boroom bëggee woon te moo di sant ak bernde tubaarkàlla macha allah xeeti jàmm yàlla yaatu na macha allah kon ñu ngi ñaanal Sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi te wér waaye ñu it ñu yàgg fi te wér te tege ci yoonu siraatu mustaqiim ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax.